Je suis exposante euh, artisanale euh, marocaine euh, en activité des, bijoux. je voulais partager avec vous les bijoux marocains pour, pour la connaître et pour savoir tout un, peu de tradition marocaine. C'est magnifique. Oui.

newel xaa dembankaane bootaay boobu lañ yore ñum dañuy bay dañuy bay dugub mbokk mi ak suuna ak ñebbe ak gerte ak ceeb ak tamaat korot newe pombiteer soble lépp lañuy bay béy ñun ñoo koy liggéeyloo suñu bopp euh, euh, ko ni ñuy dugub bi ak suuna bi ak ñebbe bi ak gerte bi sase bii loolu la ñuy boole kenn ku nekk dañ koy weer fenn ñi kii ko ñi saaf ko ba mu wow bu ñu saafee ba mu wow ñi ñi dëbb ko ñi dem si am nañ suñu machine bopp ñi wol ko bu ñu ko wolee ba pare ñi jëf ko sasan ñu koy jaayal suñu bopp cuub yi ñun ñoo koy defar dañuy jënd suñu tisi takk ko cuub ko tàpp ko teg ko ñu koy jaay léegi bu ñu amee dañuy nattal suñu bopp dañ koo commencé di natt dekk bu dekk bu nekk sa biir da ngeen di natt téeméer téeméer weer bu nekk ñaari weer bu nekk ñetteel weer bi ñi daje benn bërëb dëkk bu nekk nit ñi ñuy natt ñaari junni bu ñu ko nattee ñaar junni ñuy def ko suñu compte ñu tëj ko bu ñuy dem fenn si bi la ñuy jël ñu jël suñu paas ñu jël suñu lu ñuy lekk par ñaari weer la ñuy def ñaari weer bu nekk dëkk bu nekk nga indi ñaari junni ñi def ko suñu kees bu ñu ko jëlee ñu jox ko suñu trésorier dem versé ko suñu banque. non lañuy ñuy liggéeyee. bugg nañu ñi ñi ñuy boole si financement yi ñun jigéen bu taxaw lañ dañuy taxaw di dimbal suñu jaboot lañ am ñu doole ku ñu dimbal lañuy wut. oui pour nous pour le programme c'est c'est un événement qui permet euh, de montrer aux acteurs de l'économie sociale et solidaire euh, les opportunités de financement qu'ils peuvent obtenir à travers notre programme. Euh, aussi bien sur la ligne euh, microfinance qui finance des petites et moyennes entreprises et des micro-petites et moyennes entreprises jusqu'à autour de 20 millions, que c'est la ligne des PME qui, elle, passe par les banques et finance plutôt les, projets jusqu'à autour de 200 millions par projet. Donc c'est une manière pour nous de contribuer au dynamisme de, l'économie sociale et solidaire, euh, de montrer ce que euh, la microfinance à travers ce projet peut apporter aux acteurs de l'économie sociale et solidaire.